toutes et à tous on est le mercredi 22 euh, avril 2020 euh, jàmm seen édition spéciale Covid 19 koy defee au niveau de Sénégal 7 da leen di accompagner ba maladie bi duggee suñu réew ba tey ak it ay plateaux spéciaux yoo xam ne dañ fi dalal ay gan yoo xam ne rek dañuy waxtaanee lépp rek loo xam ne ñeel na feebar bi di coronavirus si ñum réew wala sax si àddina war nga këpp loolu moo tax aujourd'hui pour parler de la maladie ak inconvénients yi nga xam ne rek amal Euh, je reçois Abdou Karim Gueye il est le coordonnateur du mouvement Nitu Dëgg Valeur salaamaaleykum Abdou Karim. Euh, maaleykum salaam maa naka nga def j'espère tout va bien. maa donc euh, avant rek ñuy dugg suñu vif du sujet comme ni ñu koy defee chaque fois ak suñu mbokk internautes yi dañuy joxe rek résultat yi nga xam ne moo foofu foofule ci ministère de la santé tey nag bu ñu sukkandikoo ci ndawi ministère de la santé bi nga xam ne moo joxe résultats yi rek ci. ci tey bi mercredi 22 avril ñun ñuy xamal ne sur 482 tests yi nga xam ne réaliser neen ko foofulee au sein de l'Institut Pasteur fanweer nag si ñoom nag sont revenus positif ñu répartir leen comme suit vingt six cas yoo xam ne ay contacts suivi leen quatre cas yoo xam ne rek issu de la transmission communautaire moo transmission communautaire boobule euh, foo si diwaani Touba nag la feeñee tey jilee fukk ak benn ci patient yooyu nga xam ne hospitalisé woon ne leen par rapport ak feebar bi di Covid 19 bu ñu sukkandikoo ba tey ci ministère de la santé mu ñuy xamal ne fu mu toll nii seen état de santé stable naam sa euh, am neen sax tan kon mën nañoo jàpp ne feebar bi. tey bésu mercredi ñaar fukki fan ak ñaar ci euh, weeru avril deux yu déclaré positif ci feebar bi di coronavirus dont 253 guéris juróom-benn am ñàkk ci. si seen bakken benn évacué et donc 182 ñoom nekk nag fu mu toll nii sous traitement démb si ngoon ab xibaar rot par rapport ak juróom-benneel euh, ne nit bi nga xam ne rek moo ñàkk bakkanam si lii di coronavirus mu nekk ab euh, góor boo xam ne rek ay atam toll na si 74 ans dëkk si dëkk boobule ñuy dippe Louga euh, Abdou Karim Abdou Karim ñu mel ni comme fu mu toll nii en espace de 72 heures Sénégal enregistré na 3 morts mu nekk mbir boo xam ne dafay wane ne feebar bi mu ngi commencé di jël. de l'ampleur fii si dëkk bi waaw loolu c'est-à-dire xam nga man dama koy souvent ma ni mhm. euh, déjà dafa am loo xam ni man depuis début bi ah maa ngi koy expliqué mhm. waxoon naa ko ni Sénégal dañoo am long amoon nañu longue d'avance bien avant feebar bi di dugg fii mhm. parce que feebar bi boo seetee décembre la commencé euh, Chine ñun presque teg nañ ci trois xaw ma quatre mois feebar bi soo koy dugg fii donc ñu amoon nañu longue d'avance suñu autorités yi pour teel a jël matuwaay bi foofu ñun ñi ngi am information yi ñi ngi am lépp loo xam ni. Mm-hmm. day tax ñu xam feebar bi naka lay propagé woo ni muy demee. Mm-hmm. donc kon ñun li daal mooy peut-être dama naan médecin après la mort la. Mm-hmm. parce que avant dara mënoon nañ teel a jël suñu matuwaay tëj frontières yi tëj port yi tëj lépp commencé nag jël matuwaay yi nga xam mooy tax ñu mën a mucc ci feebar bi. malheureusement sàggan nañ ba ab tubaab jóge fa ñëw dugal ko bon par adduna bi muy doxee ba ñu mujjee ba nga gis bi ñu dem ba France bi France mujjee tëj ay frontières ba ñëpp tëj seen i frontières ci la ñuy soog ñun tëj suñuy frontières ne dañoo tëj fekk tëjuñu ñoo ñoo ñoo tëj kenn mënu faa gis ni en fait depuis début bi euh, wàllu depuis depuis politiquement gars yi ñoom dañ dañ koy politique waaw di ci di ci ci toppandoo di ci di ci utiliser ay affaire man dama yaakaar dafa am mm. ñëpp gis nañ ko quoi matuwaay yu war ñi leen dàq jël matuwaay ñoo fi nekk bul sonn demal Italie demal tubaab yi ñoo ñu dàq jël matuwaay ñooñu ëpp seen plateforme santé dafa mat sëkk mel ni mu war a mel tubaab yi tey boo demee Italie dem Allemagne nga dem France da ngay xool nga xam ni ñi dañoo développé amuñu problème mu ñun feebar yi nga xamante ni moo ñuy moo ñuy moo moo ñuy moo ñuy sonal fii moo tax gars yi Covid 19 bi souvent man su ma ci wax man du ma ci sori trop souvent dama koy wax damay wax man du ma ci sori parce que ni ñu waxee feebar baa ngi propagé wu ni ñu ko ngandalee ni dama naan euh, la mbër mbër la rek ci làmb gi waaye mbëri ko gën a ponkal daax ko bëri ñu ngi fi ndax ndax ñun gis nañu Afrique li fi ni fi ni fi ni fi ni fi paludisme di def ñun gis nañ Sénégal fii rek ni fi paludisme di def xale yi dee mm-hmm. gis nañ jigéen yi nga xam ne ñu ngi wasin rek dem problème mu hémorragie gis nañ ay man dem naa benn benn village fii Mbos fekk fa fekk fa benn poste de santé boo xam ni femmes dañuy wasin fi ñuy wasinee ak fi ñuy raxasoo ci toilette yi daan dañuy dox cent mètres wala cent cinquante mètres di am problème ay compresse sage-femme bi mooy jël xaalisam di jënd ay compresse mm-hmm. te loolu yàgg na fi te yooyu mi ngi fi di rey ay nit yu bare ay jigéen di wasin di dee ci ay jég xeet bu jéggi dayo boo xam ni coronavirus bi boobu àdduna di tukki di ko rey Sénégal d'accord kon su ma déggee coronavirus euh, euh, militaire yi nga xam ne fu mu toll nii mu ngi euh, wër nomba Sénégal euh, war nga këpp mun nañu wax ne fu mu toll nii loko localité yu bëri fu mu toll nii am ne na ay cas communautaire donc su ma sukkandikoo si say euh, ay kàddu rek dafa mel ni comme échec dispositif bi nga xam ne état bu Sénégal jëloon na ko par rapport ak prévention maladie bi moo nekk fu mu toll nii di indi ay résultat am. waaw cest à répétition lay nekk rek xam nga depuis 1960 yi dañoo échec ci engrais yëpp. Mm-hmm. du jàng du dara lu loo xam ne échec guñ ci mais bu mu ñëwee mu ñëwaatee ci plateforme santé bi nga xamante ni am réew. cest à lu mu dee dee dee santé bi man dama ko dund xam naa santé Sénégal nu mu man tëdd naa hôpital principal ay mbóot di ma traversé fu nekk donc man xam naa ni ñuy dundee ci santé bi quoi léegi lan moo tax ñoom santé bi Sénégal day dañuy xaar pour coronavirus ñëw pour ñu mën ci taxaw wala pour ñu jël ay précautions cest à foofu laay waxee quoi. Mm-hmm. mais nag a taxaw. dañu war a def suñu kéemtulaay war a jël ay mesures de a bon raxas gel a takk ay masque na ñëpp mais nañ xam ni feebar bi nii du loolu moo koy téye tey bu fekkoon def nañ seen liggéey bien avant bien avant avant boo toogee ci état nga toog ci gouvernement nga toog nga nekk ministre de la santé nga xam ni yow boo feebaree waroo fayu Europe mooy keroog comme ni ñu téyewoon ji Mari Sagna ak ñoo expliqué ci Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm mm. c'est-à-dire fekk doomu Sénégal yi ñu ngi sunu autorité yi ngi am jafe-jafe te xalaatuñu réew mi ñoom ñu toog ci ci ci ci ci ah, maanaam ministre de la santé di fajoo Europe maanaam ministre de l'éducation jàngewul Sénégal a ministre nangam nangam yooyu daal laal bu loolu mooy c'est-à-dire ñoom defar Sénégal taxu leen a jóg mm-hmm. donc coronavirus bi pour man business la rek quoi parce que ñoom wér na leen wóor ni feebar bi li koy téye du ay bon musi soo ko waxee ñenn ñi duñu comprendre parce que feebar da leen tiital mais feebar bi loo mën a def ci matuwaay raxasul defal lu ne feebar bi cas communautaire li koy joxe xam nga ko xamoo ko xaw ma ko xamuñu ko feebar mbiru yàlla la rek dañuy jël suñu précaution la mais état du Sénégal daf ci profiter pour business pour tiital askanu Sénégal pour def lu ko neex xalaat nga benn état si àdduna bi bu am man xam nga lu tax ma développé si ay kaaw quatre personnes six personnes chaque jour deux personnes quatre xam nga lu tax parce que dama xam ne ñoom maîtriser wuñu loolu maîtriser wuñ ko maîtriser wuñu sax jéemuñu sax lijjanti loolu ñoom ñi ngi xool naka la marché yi di doxee naka la ci dëkk bu jaaxle ñëpp jaaxle toog jonkan jaaxle feebar jaaxle ñu tiit yow ngay dugal ay loi biir assemblée nationale. d' mais Karim bu ñu revenir aate euh, si cas communautaire yi ba tey nga xam ne nemmeeku nañ ko woon au niveau de Touba mu amoon benn moment euh, ñu toog euh, trois jours nga xam ne ne feebar bi jàppoon ne ni sax au niveau de Touba feebar bi wan na leen gannaaw mhm. ñu toogaa rek une semaine après feebar bi gën faa rek wanewaat dooleem mhm. est ce que tey des zones des localités comme Touba waa Kër Massar état bu Sénégal waru xool beneen dispositif bu mu fay indi peut-être sax jéem a rek xool nu muy confiner yenn zone euh, yenn zone yu soo yoo xam ne euh, feebar bi euh, feeñu na foofu noonu ngir gën a mun a rek contenir lii nga xam ne mooy propagation maladie bi. mais confinement bi ñu wax par exemple tey Touba bu ñu expliquer ci wàllu confinement dañuy waxtaan rek ma sœur confinement bi fan la war a mën a yem nan la war a mun a demee. est ce que mën nga confiner askan loo xam dañu xiif amuñu lu ñu lekk est ce que mën nga confiner koo xam ne au jour le jour lay dund tey ñu ngi distribuer ay aide alimentaire aide alimentaire yoo xam ne réserve Sénégal a rek xool nu man man man nekk si focus ci ñoo xamante ni xam naa ne ñoom li ñuy def defuñu ko de bonne foi. Hmm. ba muy daanu ci piège yooyu dañu war a confiner dañu war a confiner Sénégalais yi dañu yàgg jooy xiif yàgg ko jooy bien avant feebar bi dañu yàgg nekk ci ay jafe-jafe ñu nekk si dëkk bi jafe-jafe ñu transport jafe-jafe ñu santé jafe-jafe ñu lu nekk léegi nag bu ñu wax Touba Touba Touba Touba ka même Touba ka baa ngi nee nañ mi ngi Kër Massar nee nañ mi ngi euh, ñaari tali nee nañ c'est-à-dire loolu laa lay wax quoi ma ne loolu est xam que fan lay jóge donc contrôle bi nekkul foofu contrôle bi ngi nekk ci defoon li la war bu yàgg def li la war ak fexe respecter peuple sénégalais bi quoi man pour man foofu la nekk. kon tey est-ce que jotul état bu Sénégal euh, via le ministère de la santé dem euh, vers euh, benn dépistage massif ci zone yooyu nga xam ne ciblé nañ leen ñu gën a xam échantillon nit yi nga xam ne am neen feebar bi est-ce que loolu tamit gënu. je suis d'accord mais suñ ko defee dina ma bett parce que du seen objectif c'est-à-dire ñoom leen yitteel du feebar bi taxaw. Macky Sall bu sañoon tey confinement bi day dem ba feew dafay nekk ba 2014. ah déedéet ba 2000 du moins 2000. Euh, déedéet 2024 sa non dañuy waxtaan sax dama la bëgg a expliquer ne la c'est-à-dire politiquement ñoom dafa am lu mu leen di arrangé tey bu ñu ñëwee nekkaat ci même dynamique gu problème ay scandale yu mag ci feebar bu jaaxal ñëpp foofu laa lay waxee quoi. Mm. mais feebar bii man li may wax sénégalais yi mooy ñun. sénégalais. Mm-hmm. set lañ ko wax feebar bi waxi set lay wax ñun par exemple en tant que musulman ñun dañuy xëy di raxasu cinq fois par jour. Mm-hmm. xam nga lu ma la wax gis nga jigéen musulman yi dañuy muuru c'est-à-dire ñun tey tey amul loo xamante ni tey ñoom indi nañu ko mu nekk lu bees ñun gisoo Trump lu mu wax Trump dafa génn Amérique na gars yi manifester confinement bi doy na américains yi ñëpp gën di manifester te moom moo ko diriger parce que loolu moo lay wan ne affaire bi am na lu laaxu ci ginnaawam. mais waaye euh, Amérique gis neen feebar bi lu mu fay def. d' accord mais parce que américains yëpp wala sax le monde entier ñu ngi critiquer Trump par rapport ak gestion bi euh, nu mu gérer feebar bi te gis nañ ne erreur am erreur yooyu mun koy rattraper parce que États-Unis fu mu toll nii nekk na pays bi nga xam ne moo gën a touché euh, si lii di. mais li ma xam nga xam bi. seen état yi nga xam ni ñoo ndax jot ànd ak moom pour gën di manifester wu cest à li ma bëgg wax leen la rek quoi mooy lépp yaa yaa truc yaa un guichet rouge d'accord foofu rek laa bëgg ñëw nga comprendre sax loo xam ne la ñu bañ a ñun sénégalais ñu dellu si suñu xel parce que instant yi dañu tiit dem ba calculer tuñu quoi mm-hmm. mais xam ni affaire il faut ñu delluwaat ko delluwaat ko si yàlla ñu xoolaat ñu xool ñun ñoo ci mën a génnee suñu ñi ñuy xaar ni yëpp di ko xaar ci Macky Sall naan ay ministre la santé ay atam loolu loolu mooy régler problème bi li ko régler mooy ñun sénégalais yi ñoo war a toog ñun ñu bëgg suñu bopp bañ loolu bañ suñu jabar loolu ñoo war a xoolaat bu baax naka la def pour mën a moytu moytu feebar bi d' accord pour mën a moytu feebar boobu léegi gis ne na carrément décès yu si am yëpp mën nañoo jàpp ne ay euh, nit yoo xam ne seen âge dafa avancé ay euh, mag leen tey est ce que jotul euh, jeunes yi ñoom seen diin bopp ñu toog si kër yi euh, bañ a indil feebar bi euh, seen ay maam ak mhm. seen ay papa parce que il paraît que ku euh, ngóor googu la nga xam ne moo gaañu Kër Massar doomam moo amoon lii di coronavirus bu koy maase mhm. xam nga loolu aussi c'est terrible est-ce que mhm. tey au niveau de la sensibilisation les jeunes ñoo toog si biir kër yi aussi waaw mais man dama lay wax ne la Sadio bu fekkee ni jeune bi moom mooy xëy dem uti ji li muy indi moom la ñuy dépense suba pour lekk xam nga instinct survie day nit boo nekkee sa kër nga toog ñu ne la bul génn parce que feebar bi mën na la dal. Abdou Karim boobu d'accord ma ak yow. xaaral ma ñëw xaaral ma daaneel su ma daaneel rek après yow su ma daaneel rek après nga d'accord <laughs> n'est-ce pas cest su nit man non xam nga man man man je suis tout ci confinement ci nit ñi toog mais nit booy toog balaa ngaa xal balaa ngaa li ñu naan boobu balaa ngay góor da ngay góor ci dara balaa ngay gore mm-hmm. c'est-à-dire nit ñi mënuñu xiif ba sonn. déjà liggéey pour nga am ko da ngay daw buy bëgg dee nga am liggéey balaa ngaa fayee ko da ngay daw buy bëgg dee nga fayee ko balaa nga ko laal jeex na loolu la Sénégal di depuis des années et des années mm-hmm. léegi bu fekkee lii dafa ñëw tegu ci kaw loolu te ñun ñi ñuy yërëmuñu ma ñëw sama papa sama yaay sama doom nekk si kër gi moo war a dem di liggéey li may liggéey li may indi chaque jour di ko mënee baroo loolu la ñuy suba ñu ne c'est que loolu ngay xool instinct de survie bi muy pousse nit ñi ñu dem uti lu ñu dundee. mais yooyu ngay wax euh, la plupart du temps. Euh, Sénégal lu mu tëddee ñu xam ne carrément politique euh, d'emploi des jeunes dafa sooke mhm. jeune yu bëri euh, liggéeyul mun nañu wax ne carrément sax mag yi papa yeeg yaay yi nga xam ne sax dem neen retraite ñoo yor kër yi donc dañu seetlu ne par rapport à la maladie jeunes yi ñoom lu ñuy gën a def mooy génn dem entraînement wala plage ak yooyu noonu mm. la plupart du temps jeunes yi demul liggéey yi gars yi bu wax loolu de gars yi dañuy cest la c'est-à-dire secteur informel bi la dañuy c'est que waar yi am na ñoo xam tey ñii ñu ngi te loolu ñuy taqale ci la dund mm-hmm. ba ci sama benn yaay wala sama benn sœur boo xam day dem marché bu demee jaay quelque jën lu mu am indi ko loolu il faut ñu leen koy sóoraale tamit da ngeen di feebar da ngeen di dee te ju leen ñëpp te ñun amuñu lu ñu lekk mais nan la def. d' accord ñu gis aussi euh, mesures yi nga xam ne euh, président de la république jël na ko wala sax euh, bu mu ne ministère de l' intérieur Alioune Ndiaye. Hmm. parce que dañoo toog rek dimanche mu génnee décret ne port du masque. dafa hmm. nekk loo xam ne dafa war a obligatoire. Hmm. fu mu toll nii au niveau du Sénégal. te si seetlu dafa mesure bi amul benn accompagnement. Mm-hmm. Mm-hmm. mu mel ni comme ñoom dañuy def pilotage à vue parce que ñu ëpp si askan bi euh, naam sax mun nañoo wax ne masque cherul mais euh, loolu. demeewul noonu mm-hmm. est-ce que tamit ñoom seen euh, nu ñuy jëlee seen ay décision yi dinañ si sóoru askan bi aussi est-ce que nekkul di def. pilotage à vue moom ne la ñoom administration yi mais man dafam lu ma loo xam dama ko jàng ci corona bi dama ko si comprendre. mooy. dama naan corona bi jàngoro la bu indi bu ñëw feeñal yeneen jàngoro. Mm. bon comme jàngoro yi mu mës a nekk comme Sénégal nu mu mel. mais ministre de l'intérieur bu amee fitu def décret expliqué ne daal léegi daal port masque obligatoire amatul kenn kuy génn ci biti te loolu sol masque loolu pour man am na benn côté bu mu baax. Mm. mooy dina wan ni Sénégal parce que moom xam ne ni masque yi du masque original quoi. Mm. kon wane ne Sénégal mën nañ def consommer local. dina gën a dimbali suñu tailleur yi ñun leen ñoom ci defar masque. masque bi ma yor ni man man tailleur yee ko bi tailleur ko defar. te wér na ko wóor ni maxi bi tailleur yi defar tailleur bi demee ñu defal ko nga gis ay bari ñu ngi commandé ne la Sénégalais yi dañoo dañoo am jom yàgg yor seen bopp ay Sénégalais de xaalis di ko yónnee ay tailleur ñuy defar ay masques di ko joxe ci mbedd bi ay immigré parce que xam nañ ni du état du Sénégal mooy jël mesure yooyu moom mooy jël ay mesures d'accompagnement pour dimbali Sénégal mën nañ nag ñoom toroxal baadoola yi dóor leen sol leen masque tëdd leen seen kër dóor leen ay yat mais pour jug def jël ay mesures d'accompagnement mënuñu ko duñ ko def te bu dee masque rek ngay wax boo demoon biir palais Marème Faye Sall masque bi muy takk original masque lay nekk mm. du bokk masque nii Macky Sall nga dem ministère pareil mais comme ñun ay baadoolo lañ te ñun amuñu te ñun ñoo nekk ci suuf ñun foog ñu góorgóorlu jéem a yor moom laa la wax sànq ne ñun rek ñoo mën a xeex jëlee feebar bi ñun rek ñoo mën